والقلم وما يسطرون woo ki nga xam ne mooy imaam Cheikh aw Balla Gueye mu ñëw joxe kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi cant yi bàyyikoo ci alaaji sëriñ bu ko defee ñu daal di waaj nag ñëw ci e, joxe li nga xamante ne mooy résultat yi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alxalqi sayidina wa nabiyina wa xabibina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel fi haza sahri almubaarak wa bi hazihi almunasabati alshaida مناسبة القرآن الكريم فهنيئا لكم بهما وأنتم تعيشون أياما فاضلة أيام الخير والبركة noo ngi siyaare ñépp di ndokkeel ñépp di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu nongul nu nongul leen fekkee loonu at yu bare bare bari ñu yàgg ko fee daje yàgg bége alxuraan ak waa alxuraan euh, ñu ngi nuyu ñépp ci turu alxaaji sëriñ sekk di sunu mbokkum daara di yëngutu ci lef mi ñu bokk te doon ci jàmbaar lool ci wàllu xam-xam ak wàllu yëkkati xam-xam walla xarwa bu ngeen xamee cosaan li muy jariñ ndax daara jii biñ ko sampee yàgg na mat na ay siècle walla bokk ab siècle boog lu ko jege mu dekk ci daara ji ñu taamu woon mu daan génne ay boroomi xam-xam di génne ay kaanga ki fóore lii wane ni daara ju am solo la man yëg naa ni bokk na ci ñi taamu woon daara ji mawlaana cheikh Shuaybu Mbakke radiallahu taala anhu ndax daana jële ay donga ci daaraam yóbbu ca daara jooje kon nag mu nekkoon leson boo xam ne nun jàngalekat yépp sax war nañ ko roy yaakaar naa bariwul boroom daara juy jël ci ay dongaam di yóbbu yeneen daara loolu sëriñ Shuaybu tàmm na koo def am na ñu muy yóbbu këri sëriñ daan Seck ca Beyti am ñu mu daan yóbbu ciise ci kër Souleymane Xumma am ñu mu daan yóbbu ñànk ca kër Alaaji Sëriñ Géy te fekk moom mi ngi yore daara kon mel na ni da daan orienté ay nit ci kemtalaayu ni mu gisee kenn ku nekk nu mu war a demee ci turu nag e, daara jooju te Alaaji Sëriñ Sekk nekk ci bopp bi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm waaye dañuy jiital ci ngërëm li ñii nekk ci pojom bi ñoom alxaaji sëriñ mbakke alxaaji jiili ñang alxaaji mbakke sorong ak ñi yore mbirum tari bi ñoom alxaaji xaadim njaay ak ñi ñu àndal ñoo ñu nga xam ne ñoo doon gërëm nit ñi ñoom lañuy tàmbali ci gërëm leen ñoom itam sant leen ci teewaay bi ak liggéey bi ñu tàmbali bu yàgg-yàgg nga xam ne ay weer a ngi nii yéen a ngi leen di door a gis waaye ay weer a ngi nii ñuy seqi ay jéego ba wër sax réew mi di dem fu nekk di dem ci ku nekk di leen yëgal ndaje mi ak di leen wax solos na kon alaaji sëriñ mi ngi sant waa alquran ak ñooñi alquran ndax yëg nañu bis bi teewal nañ fi alquran bu doy sëkk mooy téere bi nga xam ni moom rekk moo dib téere beneen téere bu ne roy waaye royaat rek nga waaye moom moo dib téere kitaaba rabbi innaka alkitaabu fiika xaala dalika alkitaabu moom rekk la kon nag boobu bu ngeen jógee ngir moom jóg ngeen ci lu am solo jóg ngeen ci lu ko jar jóg ngeen ci lu doy te loolu moo di alxuraan ak waa alxuraan kon bég mi nga xam ne nii am nanu ko ci turu sëriñ ak ñi mu àndal wallahi nit mënu koo xayma nit mënu leen koo wax ndax koor gi tàngoor wi sori gi nga bàyyi sa yitte ak sori waay bi yëpp ñimee dox nga ni foo jëm damay dem ci mbirum diw loola doy na ak cant doy na ak yëg doy na itam ak faale kon ñu ngi leen di sant bi alfi sukrin fa jasaakumu llahu an il islami wa an il qurani xayra al jasa wa jasa al xayri wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullah imaam Cheikh Awa Balla Gueye anta bi ni'mati